de décider certaines choses il appartient au peuple sénégalais de savoir mhm. qui a fait quoi quand et comment mhm. léegi nag bu fekkee njëriñu Sénégal la woon ñu jaajëfal la mhm. xam nga bu nekkee nekkul njëriñu Sénégal nag lépp loo xamante ne war nañ ko cee def ci wàllum yoon yoon day jot mbir yooyu noonu léegi yoon moom mooy xam lu mu ci doxee waaye nag lu ñu war a càmbar ci réew mi lépp lañ dañ ko war càmbar te ñu koy war a càmbar ñoom jotewul dara ak li nga xamante ni moom mooy mission yi nga xamante ni aussi dénk nañ ko ministre yi ci wàllum dund gi ci wàllum courant bu cher bi ci wàllum jafe-jafe yi nga xam Sénégal yi ñu koy jël d'accord fi nga fi nga wax am na solo mais li ñu tere ci li ñu jotee ci wax euh, ci ci waxtu daanaka li ñu des euh, à peu près c'est 15 minutes régi régi itam moo ngi may pressé parce que am na équipe bi nga xam ne mooy xaar ci ginnaaw mm-hmm. parce que ñaari ponk moo ci des dinaa ñëw ci Birame Souleye moom laa bëgg ñu tëjee ko mais itam euh, fi nga xamante ne moom la président Bassirou Diomaye Faye demoon ni ki démb moo nekk fi nga xamante ne moo di Mauritanie ak fi nga xam ne fa lay dem ëllëg mu di Gambie ce sont des deux deux pays frères mais deux yoo xamante ne dañoo am étroite collaboration su économique. parce que mhm. tamit Mauritanie quoi qu'on puisse dire tey lii sama grand frère Ahmed daan wax suul gaz du ko du ko du ko teree xeeñ mais jamono ji gaz boobu di xam ne mooy xeeñ suñu diggante ak est-ce que du loolu ministre bu euh, bawoon ca Mauritanie li ko taxoon dugg kaso mooy contrat boobu nga ne signé woon nañ ko Mauritanie jàpp ne ñoom dañ caa daal di eh, dañ caa daal di loru Sénégal ñi ñenn ñi jàpp moom moo ko fa yóbboon xool moom ak président Aliou Galsen ñu xool nan la mën a arranger euh, loolu nga xam ne moo dox ci contrat boobu nga xamante ne Sénégal ak Mauritanie jot nañ ko seq ci wàllum pétrole bi ci wàllum gaz bi plutôt. ci wàllum gaz bi euh, Jérôme man man damay am beneen lecture. Mhm. Euh, parce que ñu bëri wax nañ ci gaz bi déjà ils ont parlé mais man damay bëgg journalistes yi aussi parfois ñuy creuser. Mhm. lii c'est c'est fort c'est symbolique c'est historique. Mhm. pas historique ci jóg dem seeti waa Mauritanie. mais c'est historique dans la priorité. Mhm. Jérôme ñun avec la Mauritanie on est lié par trois facteurs le facteur géographique. Mhm. le facteur historique. Mhm. ak le facteur culturel. effectivement. te wolof dafa ne sa dëkkandoo mooy sa premier mbokk. mbokk mun nga bokk ni ndey ak baay mu sori la sa dëkkandoo euh, mun na néew doole waaye ëppal la njëriñ. ki nga xamante ni moom mooy sa ki nga bokkal deret te mu am doole te mu sori la. lu ñu doon seetlu ci président yi bu ñu leen falee la plupart amul ku ñu ci fal nga ñëw ne kees yi am na xaalis. xam nga kon et yi mhm. euh, mhm. mag yi nga lijjanti loolu ba pare. pour mhm. nga mën a fay a salaire. mais président Bassirou Diomaye Faye vraiment ak le premier ministre euh, euh, Ousmane Sonko ak tout le gouvernement du Sénégal dañu andi benn doxalin mooy lan d'abord dañuy feddali colère ci ñi xam ñoom lañ ñoom lañ ñoom lañ sëkkal nos nos voisins immédiats bi au-delà du gaz ce qui est important euh, xoolal le le le ceux qui ont accompagné le président délégation bi ànd ak moom on retrouve le ministre des transports aériens et des infrastructures terrestres et des transports terrestres muy El Malick Ndiaye on retrouve le ministre de la pêche Fatou Diouf. Fatou Diouf yaa ngi dégg on retrouve son directeur de cabinet Mary Teuw Niane mais aussi euh, ci biir voyage bi on a euh, comment dirais-je euh, le le ministre de la diplomatie bi nga xamante ni monsieur Ndiagne bi nga xam moom bokk nañ ci délégation bi te am na beneen ministre bu ci nekk man damay dem ci benn organisation bu gën abouti boo xam ne ñu bëri tudduñu ko ci biir voyage bi wala bàyyiñu ci xel te mu bokk ci priorité président c'est l'OMVS. organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. mise en place en 1972. parce que loolu itam suux na sax OMVS moom suux na suux na. à peu suuxul bokk na ci ci ci ci ci. Euh, ci organisation yi gën a abouti ci Afrique de l'Ouest mais soo xoolee presque li nga xam ne moo taxoon ñu ñu ñu ñu ñu kii ko tey électricité beeg agriculture mais daanaka sax. Euh, mais yooyu mu ngi ñëw parce que le barrage de de Diama ak le barrage de Manantali c'est grâce à l'OMVS. Euh, suñu rapport yu ñu amoon ak Mauritanie après les années 89 xawoon na fragilisé tuuti effectivement handicapé woon na ko tuuti mais c'est la Mauritanie le Sénégal et le Mali qui avaient signé l'OMVS en 1972 en 2006 la Guinée rejoint la Guinée-Conakry rejoint euh, l'OMVS l'OMVS le fleuve Sénégal après le fleuve Niger c'est l'un des fleuves les plus importants de l'Afrique de l'Ouest c'est une superficie de kilomètres carrés c'est une capacité en eau extraordinaire mais l'OMVS c'est sur l'autosuffisance alimentaire mm-hmm. hydraulique c'est en matière xam nga d'eau potable en matière euh, comment dirais-je euh, de d'irrigation mhm. mais aussi euh, euh c'est l'énergie mhm. parce que tey boo xoolee euh, États-Unis mhm. lu mel ni Vegas ak Nevada ak Arizona Nevada état Nevada ak Nevada Arizona c'est des c'était des zones arides amuñu amuñu ndox amuñu dara mais c'est l'un des barrages les plus importants troisième barrage de Hoover Dam qui a permis à alimenter en eau et surtout en électricité ces zones là donc tey ñun on a une potentiel boo xamante ni ñun mën nañ jox courant ba jox courant lu jéggi Mali lu jéggi Guinée Conakry ci juste fleuve Sénégal bi nii yaa ngi dëgg parce que Fouta Djallon ba jusqu'au Falémé au Kaay de Mali mais fleuve Sénégal lu lu mu am ci potentiel di lu yéeme la kon boo xoolee tey lu ñu bëgg mooy ñun ci wàllum dund bi mhm. mun na jaaree foofu noonu mais beneen acte politique bu ñu def ak Gambie dem nañ ko ak ak ak ak Mauritanie. Rosso Sénégal ak Rosso ak ak Rosso Mauritanie. y a le pont qui est en train d'être construit bu njëkk ba ci ndox mi gaal yi dañ leen suux xam nga nit ñi dañu leen souffrir oto yi bu ñëwee camion bu ñëwee. bac mhm. euh, bu leen doon jéggil c'est un bac ancien très défe xam nga. Euh, nekk ci état de débris voilà mhm. état de vraiment de débris bu bu doy waar. tey yooyu yëpp politique la yoo xamante ni. ñaari état yi wala ñetti état yu ko sëkk renforcer OMVS bi. Mhm. dafay andi beneen niveau de euh, de propulse de propulser xam nga cette prospérité bi nga xam te ni bëgg nañ ko ci suñu ci suñu réew yi mhm. mais ginnaaw loolu aussi mais nous sommes deux peuples qui se confondent. Mhm. Euh, Jérôme tey boo demee euh, Rosso Sénégal nga dem Fouta nga dem nga dem Saint-Louis mhm. nga dem Mauritanie dans les frontières mais c'est c'est des Halpulaar que tu retrouves c'est c'est des qui s'il y avait pas les frontières tu mënoo leen xàmmee donc sur le plan culturel ak sur le plan xam socio culturel mhm. mais dafay andi dafay renforcer lu bëri mhm. dafay aussi xam nga euh, sa sa dëkkandoo boo boo koy seeti mu lay seeti mbokk bu dëgër day judd. Hmm. mais aussi lépp lu nekkul judd dafay dafay. mais intérêt bi surtout Sénégal loolu daanaka daanaka loolu loolu lañ sanoon sax loolu ci jiital mais mais ci côté économique bi tey gaz bi yàlla dafa ñu may loo xamante ñu ñaar ñoo ko sëkk hmm. te aussi ñaar lëkkaloo yi am na négociation yoo xamante ni Sénégal mënu ko def séparément Mauritanie mënu ko def séparément parce que firme yi liggéey ci affaire gaz bi ñun ñaar ñoo leen bokk sëkk hmm. dafay moo tax dafay baax yenn yi à un moment donné Macky Sall na fi euh, Mauritanie c' était pour ça c' était pour harmoniser certaines négociations. Mhm. te Bassirou ak ak Gazouani euh, seen lëkkaloo dafay permettre l' parce que xam nga retardé woon nañ fi exploitation gaz bi. exploitation bi gars ne euh, budget initial de de xam nga de travaux yi jógee na 3 4 milliards dem 9 milliards te yooyu la plupart dañ ko bëggee imputer état yi. Mhm. mais ñaar état bu ñu lëkkaloowee am benn kàddu. dañuy mën am xam nga une voix. Mhm. xam nga non discordante mais une voix xam nga et qui permettra de dire non à certaines. mais mais d' mais foofu ñu bu ñu mën sori impact bi nga xam ne xaarandi nañ ko parce que tamit. exploitation bi mhm. waroon na ko waroon loolu tax mën nañu wax ne looloo taxoon sax entre guillemets président Macky Sall bëggul woon teel a dem dafa bëggoon assurer. loolu assurer mhm. way investisseurs yi nga xam ne dugal des daal dugal nañ ci seen xaalis ba pare. impact yi nga xamante ne moo moo nar am retombées yi euh, est ce que loolu posé itam ci euh, visite boobu nga xam ne président jot na ko am. mais bien sûr parce que tey xam euh, ci retombée GTA. déjà budget Sénégal ak c'est <laughs> mais mais loolu phase initiale mm-hmm. ci loo xamante ni ci 30 lañ ko war a exploité mais euh, Jérôme y a des euh, d'envergure environnementale yoo war a da ko war a déclencher yéen ñaar yéen ko war a sekk. Mm-hmm. donc lu bëri ci retombées yi da yow yow politique de développement bi. Mm-hmm. da nga koy sekk ak Mauritanie. parce que mënoo ko bañ def. xam nga tey boo bëggee def benn infrastructure euh, Saint-Louis forcément day impacté Mauritanie. Mm-hmm. xam nga mais ginnaaw loolu aussi euh, c'est deux peuples yoo xamante ni même ci wàllum formation bi xam nga lycée bu ñu bu ñu def jam ñaajoo xam nga l'institut supérieur xam nga professionnel. Mm-hmm. yooyu yëpp tey nan la ñu mën a def sax ba dañuy am euh, des des professionnels. xam nga su sur sur la matière en matière de gaz en matière de d'exploitation. Mhm. yoo xamante ni Sénégal da koy sëkk ak Mauritanie parce que ñoom ñaar ñoo bokk bijou bi. Mhm. ñoom ñaar ñoo bokk yàlla ngëneel bu mu leen defal. Mhm. ginnaaw loolu aussi ci côté protection environnement parce que lu am. am solo la xam nga tey naka la def ba sàmm alam bi ba sàmm géej gi. ba li nga xamante ni yeneen réew yi loolu lañ dund ci wàllum jafe-jafe duñ ko dund te boo ko defee boo boo ko bëggee def sa côté kese yoo kese mhm. te nga bokk ak ñoom géej gi du am impact du am impact xam nga mhm. donc euh, tey loolu mais euh, ci wàllum yi mun nañ dem ba am ay bateau taxi entre Mauritanie ak Saint-Louis xam nga mhm. loolu ci retombées yi lay nekk xam nga tourisme écologique bi parce que Mauritanie désert la ñu bëri dañuy fàttali ne Sénégal noor bi am na désert boo demee Lumpul xam nga boo demee un peu dans le Fouta xam nga donc si côté écologie ñun mun nañu fi jaaree alal bi ñu jël ko ñoŋal ko fexe ba askan bi du xam na zone boobu napp kese la ñuy xalaat. Mm-hmm. mais le tourisme boo être propulsé à partir de retombées gazières le le, le tourisme écologique peut être propulsé mais aussi le comment dirais-je euh, euh, euh, euh la médecine parce que tey financement yi nga xam dañ koy jël mun nga décider ñaari dëkk yëpp décider ne ñu ni ñu bëgg a teg en place benn euh, euh, hôpital xam nga inter. Euh, continental bi nga xamante ne ñaar dëkk ñoo koy sekk rotombe yooyu lay jógee mun na nekk zone Mauritanie ko mun na nekk zone Sénégal mais côté barrage aussi si en matière de production d'électricité xam nga tey mun ngeen am alal boo xam doo ko jéggaani doo ko dem lebe fenn yéen ñaar ñoo koy bokk yéen ñaar ñoo koy produire ba pare ñu ne nag ak lu mun a xew ci wàllum diplomatie barrage yi duñ ko mos a affecté parce que boo xoolee am na barrage bu ñu bëggoon euh, mettre en place après les événements de 89 Mauritanie voilà Mauritanie xam nga tey si loxoom ba pare bañ ne parce que Sénégal mënoon na xëy benn jour peut être teg ko ci pression mhm. donc yooyu tamit nga mettre ay chartes yuy permettre que ak lu mën a xew en tout cas lu ñu sëkk mhm. même lu ñu mun a jot ci côté diplomatie du ko mës a affecté. d'accord am am c'est important kon visite du président bi vraiment euh, yaakaar naa loolu lépp dina ci. ëllëg tamit ëllëg tamit Gambie peut-être tamit. Euh, loolu loolu da ciy da ciy daale juste nga nga juste deux minutes parce que régime moom mooy <laughs> <laughs> nga xam nga Gambie c'est c'est c'est un pays c'est un pays mun naa ne sax. Gambie ñun suñu sañoon Sénégambie lay nekk waa Sénégal day nekk Sénégambie. Mhm. xam nga day depuis Kaba Diawara tey ba tey xam nga euh, c'est deux yoo xamante comme ni ma ko waxee si Mauritanie boo demee au ñi dañuy làkk pulaar boo demee da ngay confondre ñaari peuples yi mais boo demee Gambie boo demee xam nga Serekunda ñëw. Casamance dem Kolda c'est des pays c'est des peuples qui parlent le manding le peul c'est des pays qui se confondent le joolaa tout ça. Mhm. donc euh, entre les deux peuples xamul tax. Hmm. parce que pour man ah, ah, ah, Adama Barrow il était un peu redevable à Macky Sall. d'accord maanaam euh, ci liaison yi dafa amoon benn lu mu ko mënoon ruusee parce que ba affaire yi jaxasoo élection yi jaxasoo. Macky moo ci dafa ñëw Gambie dafa ñëw Sénégal. Hmm. fii ambassade du Sénégal ambassade Gambie du Sénégal fii la prêter serment donc à ak un à un certain niveau euh, da Macky Sall nekkoon fi da day tax mu xaw a am tuuti ay laaf yu tooy. Hmm. mais là. c'est vraiment sur le moment où la Gambie va s'affirmer et discuter de façon ouverte avec le Sénégal. Et je crois que Bassirou, le président Bassirou Diomaye Faye, en allant en Gambie, mm -hmm. il, il est en train vraiment de montrer que avant de s'affirmer sur le leadership de la sous-région, il faut d'abord s'affirmer sur le leadership euh, des voisins immédiats. Euh, et en allant à la Gambie aussi, c'est de dire à la Gambie, vous êtes en sécurité. Mm nous partageons la, le même espace. Mhm. Tey mënoo dugg Gambie te jaaroo c'est pour les rassurer c'est en matière de collaboration en matière de partenariat et surtout surtout man je rêve la Gambie même entre dans la CEDEAO ci côté monnaie xam nga ah, Gambie bañ a utiliser le dalasi xam nga peut-être que itam ci la permettre fluidité xam nga yi da koy permettre mais aussi xam renforcer ces liaisons là pont bi y un autre pont qui peut-être peut xam euh, euh, comment dirais fexe ba Gambie am ko et Gambie sax mën a dem ba rejoindre aussi OMVS xam parce que tey nu ko Guinée OMVG itam am na trop trop trop mais sécurité bi aussi dañ koy renforcer parce que bul fàttee ni xam dañu mosoon am jafe-jafe xam ci côté Casamance bi ak Gambie mais tey loolu lépp tey vraiment jéggi nañ ko je crois que c'est une visite très très très bien au lieu ngay dem fii alxuraan di dem ay France dem feneen balaa ngay dem côté boobu yëpp wanal say nawle sa wanal say dëkkandoo ko ni man yéen laa fonk yéen laa njëkkee xam nga euh, bu ma dara dalee tey yéen a teew si kon mm-hmm. man vraiment fii laa leen teg fulla bi la am ci yéen te aussi mënoo prospérer Sénégal mënoo liggéey Sénégal te sekkoo jàmm ak ñi nga xam ñoo la jege et j'espère que aussi la prochaine la troisième visite sera sera en Guinée-Bissau parce que boobaa dafay vraiment combler euh, la euh, euh, mhm. nga xam ne ñu internet yi def waaye nag coowal Birame Souleye faw ñu cof ci tuuti rek <laughs> ndax gars ñoo koy laaj foofu loolu itam ndax ñenn ñi jàpp nañ déclaration malencontreuse la wala dégg-dégg daal ca desee am parce que moom Birame Souleye man kii suis de Taxikaw su ma neexee mën naa ko wax moom mooy sunu maire mhm. donc on le connaît am na tournant boo xamante chaque année dañ ko daan organiser mhm. moom mhm. moom moo nekkoon parrain bi yàgg na jàppale jeunes ci loolu nekkoon na parrain euh, coupe maire nekkoon na parrain euh, ni nga xam ne fa la daal di cosaanoo donc est-ce que moom ci en tant que ministre euh, waroon na yëkkati kàddu yooyu noonu jëmee